boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokki jullit yi jàkkaarloog ñun bokki taalibe yi gannaaw bu nu santee sunu borom subhanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam sant a Cheikhul Xadim ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen ziyaara ziyaara bu ñu tibbee ci suñu xol noo ngi teew fii ci résidence Cheikhul Khadim Khadim Rasoul kër gi jàkkaarloog jumaa ju mag ji fii ci Touba ñu teew ak kuréel gu ñuy wax diwaan diwaan nag daa bokk ci comité d'organisation grand magal la Touba bi nga xam ni Cheikh Mouhamadul Bachir moom sëñ Abdul Khadir moo ko jiite diwaan nag dafa dajale mboolem së sëti mag ñi àndoona Cheikhul Khadim Khadim Rasoul mu mel ni Serigne Touba Cheikh Seydil Mokhtar moo leen joxoon ndigal li depuis 2012 ak léegi wax ni benn fanu safar bu fukki fan ak juróom ci weeru safar euh, liggéey bi yépp ci biir kër Serigne Touba gi mi ngi ko teg ci loxol seeti mag ñi euh, kuréel googu nag tudd diiwaan nekk ab bànqaas ci biir comité d'organisation grand magal Touba mu mel ni nag màggal gi dañ koy waajal ci ñaari anam ci berndeel euh, ruu yi waaye ci berndeel itam jëmm yi bernde ruux gi nag moom dafa am solo lool ndax ku fi ñëw war ngaa xam kan mooy Serigne Touba war a xam dëgg-dëgg Serigne Touba lu ko taxoon a ñëw waaye tam xam mag ña seen taxawaay ak seen yitte ju kawe ja ndax euh, bayit wa Serigne Touba jagleeloon saxaaba ya saxaaba ya la waxoon de ayaa xaadimal moxtaari laa tan sax boobu fa man yansahum fal madhu madul muqatahu waaye bayit woowu de mën nañ koo jagleel mag ña àndoona Serigne Touba ndax képp ku tudd Serigne Touba rek war mag ña ndax liggéey bi ñoo ko àndoon ca Mbàkke Kajoor Mbacke Bawal ca daaru Salaam ca Touba ca Mbacke baari Jolof ca géej ga ba mu jugee ci géej ga jaar fa mu jaar fépp ba agsi Darou Salaam ca daarul man naan ba mu dem gànnaar diggante Sarsara Xuma ak Jalaariya ba mu ñëwee Ceyeen Jolof Daaru Xudus Jolof ba ni mu jëwee Njaareem ba 1927 liggéey bi sëñ Touba ak mag ñi ñoo ko àndoon mag ñi ak sëñ Touba gërëm leen ba kenn ku ci ne la taxoon nga gàddaay fekk sëñ Touba am nga ko mag mu ci ne rek la nga ci sëñ am nga ko. kon nag ñoo ñooñu lañu fas yéene waxtaane seeni sët ak seeni sëtaat daje nag ngir nag feeñal Serigne Touba tey nag ñu fas yéene ci ànd ak ay boroomi xam-xam Serigne Falilou Sylla ci la dara maan ñëpp xam nañ taxawaayam ci xam-xam taxawaayam ci yoon wi xam taxawaayu maamam yu tedd ñu ànd ci Serigne Mouhamadou di sëttu Cheikh Moussa Dramé ñëpp xam taxawaayam ci Saloum doonoon jàmbaari Serigne Touba ñoom ñaar ñooñu ak ñi ñu àndal jotaay bi ñoo fas yéene waxtaan waxtaanu am solo kon man dama doon présenter kilifa yi fi teew kon mboolem kuy teewlu site Istikhama TV rek ñu ngi lay nuyu di la ziar kon ma jébal kàddu gi sëriñ. bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jullit yi ñuy seetaan ci seen bii di Istikhama nu ngi leen di nuyu te di leen ziar di ñaanal Cheikh Mahmadul Muntaxa suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi mu naal mu ànd koog noonu àggale ko ci barkeb Serigne Touba. xam naa di njëkkante waxtu wi rek euh, niñ koy defee saa su nekk mooy di amal ay jataay yoo xam ne dañ ciy fàttaliku njàngaleem sëriñ bi rawatina ci fan yi nga xam ne nii ci la ñu nekk te mooy fani safar yi di tàmbale ci benn pan bi ba ci fukki fan yi ak juróom ni ko sëriñ Mbacke waxee sëriñ bi dénk ñu liggéey boo xam ne waa diwaan noo ko yor te Touba li abdin muridin di daayira bi nga xam ne nii moo lëkkalee Euh, sëti mag ñi nekk benn banqaas ci biir diwaan di ci taxawee taxawaay bu am solo ci dalal gan ñi ak njàngum alxuraan mi ak xasida yi ak waxtaan yi jëm ci sëriñ bi ak la aju ci yoon wi lépp tey nag euh, nu am thème bu am solo bu ñu war a indi ki ñu koy defal di Cheikh Mahamadul Fadil Sylla ci la Daraman ni ko sëñ Mbàkke waxee duma ci sori di ko ñëpp xam ci dëkk bi waaye xam ko ci yoon wi ci taxawaay yu mel nii bu dee fii ci diwaan bi itam mu jiite commission culturelle ak commission bi nga xam ne nii ñoom la ko àndal ñëpp muy membre yi ci nekk. Euh, su ko defee kon waxtaan wi sëñ Fallou euh, dafa mel ni tey poñ bi ñu tànn mooy liggéeyub sëriñ bi nga xam ne nii moom la jaayante woon ak boromam subhaanahu wa taala engagé ko liggéey ko ba mat sëkk boromam fay ko ci pay goo xam ne. kenn xamul nu gi toll wala fu tàmbali tàmbalee fu yem xanaa ñu fàttali rek historique bi mooy fukki fan ak juróom-ñett yi nga xam ne ni moom lañuy waajal war koo màggal te mel ni keroog bi weer wi teroo lañ ko tàmbali jëm ca fukki fan yi ak juróom-ñett sabab bi moom leer na du jëriñu ci sori ni ko ñëpp baaxee xamee mooy Cheikh Moussa Ka da cee indi woon ab tontu. daa mel ni daa am ko ko doon laaj mu tontu ne yaa saa ili an sababi taazimi yowma xuruji cheikhina alxadimi fan mu ne min daarihil tudaa bi mbàkki baari bi isni xaalixil baraaya baari loolu nag lam ko confirmé mooy bayit bi mu ci teg mooy xarajtu ma tabsi saamini asar li xidmatil muxtaari fi chahri safar kon daa mel ni sëñ Moussa Ka waxi sëñ Tuubaa la dëggalee ay waxam ndax xarajtu loolu sëriñ bi moo ko wax xarajtu sëñ Fallou defe naa bu dee ci naxwu fi'lu la ak fa'il day mel ni sëriñ bi moom tuggoogu boppam la ci jublu wax na kon engagement bi moom moo ko jëlal boppam mooy xarajtu yow ma sabti tam mooy bis bi kon wax na bis bi ban bis la kenn du naan bisub gaaw la ak xaw ma bisub dibéer la ak wala altine wala talaata la yow ma sabti la wax ci biir bayit bi saa mi ne asar itam muy fukki fan yi ak juróom-ñett nattam lay tudd ne kon 18 safari sëriñ bi tudd na ko cause bi mooy li tax mu jóg dem liggéeyi mooy li xidmatil moxtar laam googu ci li xidmatil moxtaar ahlu yi am na nuñ koy tuddee laamu taalil la defe naa kon li sabab tukki bi mooy li xidmatil moxtaar ci ban weer fi chahri safar kon boo xoolee bayit bi daanaka résumé na engagement wu sëriñ bi ci boppam euh, bis bi mu génn barab bi mu génnee ñaata fan la ci weer wi ci ban weer la kon euh, loolu mooy historique datu màggalu Touba léegi nag li nga xam ne nii. ñu ci intéressé rek mooy 18 safar sëriñ bi moo ko tànnal boppam wax ne bu ñëwee képp koo xam ne ne sama mbégte sa mbégte la euh, nang ma ci santale sama borom subhanahu wa li tàmbalee ci ganaar ba ci gëléem loolu mooy historique gu màggal gi su ko defee kon sëñ Fallou dañ la doon ubbil rek pour nga am point boo xam ne nii ci nga mën a déparé te mooy. sababu màggal gi eh, li ko waral wax nañ ko léegi nag lan nga ñu ci indi loo xam ne tey bu ñu eggee ci 18 safar bi loolu dinañu gën a mën a motiver bañ xam ne ñun kat li sëriñ bi rëddoon ne nii la nu ngi ci te jaaree ko ci ndigalam bismillah bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala wa ala alihi wa ashaabihi ummatihi ajmain wa radiya allahu an cheikhina ahmad alxadim ridan yachmulu ahlahu wa atbaahu wa ahibaahu bittamim ixwata almushahidin alkiram fi kulli makan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu eh, tomb bi ñu bëgg a indi mooy fàttali tuuti ci maanaam tukki bi sababi zahir yi ak lenn ci xew-xew yi am ci biir tukki bi hmm. euh, tukki bi ni ko waxee rek sëñ Mor Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ginnaaw bi nga xamee ne wooteel na lislaam suñu borom subhaanahu wa taala sos yoonu murit ci 1853 ca Mbàkke Kajoor am fa benn at ñëw Mbàkke Bawol am fa ñaari at ñëw daaru salaam am fa ñetti at ñëw Touba am fa juróom ñaari at yu teg woote bi dafa tàmbali di yaatu mu ngi fiiroog nag 1895 woote bi dafa tàmbale yaatu di dej ci goxi Sénégal yépp yàlla dafa dogal itam mu defar aw nit maanaam seexal leen maanaam wàcce leen ñu def dem ci gox yi ñu tàmbalee xam yëngub sëriñ Touba. ci gox yu wóote ci biir réew mi bokk na ci yi sabab mbir yi te lu bare bare dañ koy fàtte Sëriñ Tuubaa bi mu nekkee Bawal am na ay seexam yoo xam ne ku ñu wax sëñ mormaane Mbay ak sëñ Aliou Diouf Lambaay euh, ginnaaw boo xamee ne am nañ ay jafeñ-jafeñ ak euh, ka nekkoon ca seenu gox te yoroon nguur ñu bàyyi xel na itam di offensé maanaam yenn tur yi ak yenn famille yi lu metti la ndax léegi ñëpp ay taalibi Sëriñ Tuubaa lañ ñëpp ay taalibi Sëriñ Tuubaa la te al islaam yajubbu maa qabla islam dafay réparer li passé woon te loolu ñuy wax war nañu ko bàyyi xel parce que léegi ñëpp nangul nañ Sëriñ Tuubaa te Seydina Umar ibnul Xattaab moo rey baayam ca ca xareb ci benn xare moom moo ko rey te teewul ñi gën a am maanaa ci lislaam la bokk kon nit ñi buñ koy atte ci ay maamam maanaam léegi-léegi dana am yoo xam ne ci discours yoonu murid dafa war a sensé maanaam di di di di di joxañ nit directement léegi jamono moo fa tollutul parce que amaana ñoo xam ne amal nañ njëriñ yoon wi amal njariñ réew mi foo xam ne la seeni maam defoon tilka ko xad xadat laha ma kasabat waaye walakum ma kasabtum loolu moo tax am na ci yoo xam ne léeg-léegi loolu war nañ koo man di ko daw léeg-léegi loolu moo tax nag toujours maanaam mm, loolu ci discours yu bees yi ci la war a bokk en tout cas sëñ euh, Touba ay njabootam amoon nañ jafe-jafe ak benn buur ci Bawal te it ñu bàyyi xel na tubaab yi bi ñëwee ba daaneel sëriñ yi daaneel buur yi dañoo samp lenn ci doomi buur yi ay euh, chef de canton chef de canton yooyu nag ñoo daa am problème ak sëriñ bi di rendre seen problème yooyu di ko jàllale ci ñi leen yilifoon muy tubaab yi kon lenn ci buur ya am na ñu amoon jafe-jafe ak wooteb sëriñ Tuubaa ci Bawal ba tax na gouverneur général jëkk jot na ci première fois loolu mooy li sëñ Mbàkke bu sa wax te soo demee ci euh, Irwa na Nadim bi wala wala wala wala waa ci boo demee ci Seydi Cheikh Mahamad Bachir Minanul Baaxil Xadim am na lum ca leeral sëñ Mbàkke maanaam tuubaa bi fi Sëriñ Touba nekkee boole woon nañ yoon wi ak gouverneur général de Ndar ñu dem wuy ji waxtaan ak ñoom ginnaaw ba lañ wax lañ gis ne Sëriñ Touba lañ jot ne moom lay def muy taal jihaar mel na ki Cheikh Omarul Foutiyu ak mel na ki Cheikh Thierno Souleymane Baal ak ñi leen jiitu woon loolu bokkut ak maanaam maanaam gis yi nga xam ne Serigne Touba am na ko ci wàllu diine donte ko ñooña nangul nañ leen leen def lañ def ndax am nañ sañ-sañu jihaad ci lislaam ndax al maanaam loolu ab ponk la ci biir lislaam jihaad kenn du ko génn ci lislaam waaye Serigne Touba nag moom dafa waxoon ne wa biye jaddi dis sabil bila idan aw alami dafa bëgg a yeesal te di ko jaare ci jihaad bil aq maanaam jihaad bil armah di jaare ci ci jihaad bil aqlaam kon e, loolu mooy li nga xam ne moo ko jotale ak tuba bi première fois bi nga xamee ne nag suñ Mbàkke nee na de gouverneur général ci boppam déggoo na ñoom ci ay kàddu boobu sëñ baa ngi Tuubaa bay jox na leen sax ay kado ay kado am na lu mu yónnee pour d'accord ak ñoom foofu nag dañoo wax ne ci sabab bi man nag waxuma ci sabab bi baatin tey maa ngi wax ci sababu zahir ndax dafa am lu ñëpp baaxoo wax sababu zahir yi laay wax bi Sëriñ Tuubaa nekkee Tuubaa nag ba wàcce Cheikh Ibra Sarr Njaañ wàcce Sëñ Masamba Diop Sam wàcce Cheikh Ibra Fall euh, dafa am ci nizaam an nizaamul muridi an nizaamul muridi mooy ni yoon wi doon doxee jamono jooja dafa tàmbali maanaam di wute maanaam ak na ko sëriñ bi bëgg woon te mooy wàccuwaay bi Cheikh Ibra amoon ci liggéey ak joxe ak taxaw yoon wi ci dooleem dafa mel na dafa am benn witt ñu jël sëñ Mandumbe remplacé ko place Cheikh Ibra Cheikh Ibrahima loolu itam sëriñ bi daf ko waxoon ne ko yow maanaam doo wàcc doo wàcc maanaam moo tax moom ba mu wàccee ñooña joxal jox na ko ndigalam loolu nit ñi nañu ko bàyyi xel seen maanaam amul ndigal ga ak ngërëmul sëriñ Touba la maanaam génération bi njëkk bi njëkk a génn si ndaam Abdourahmane Lo ba ñoo ñee jotee ngërëm dafa jot ndërëm ngërëm waaye moom jot na ngërëm waaye amul ndigalul yeweeku ñee am nañ ndigalul ku mel ne am na ndigalul yeweeku dem sëñ Massamba Diop Sam am na ndigalul yeweeku dem Cheikh Ibrahima am na ndigalul ndigalul yeweeku dem ci pàcc suuf yi ci Sénégal lëggéeyal fi Sëriñ am na ndigalul am na ngërëmul Sëriñ tubaa waaye dafa am ndigalul toog wéyale liggéey bi lu tax boobu dafay jàngale dafay jàngale dafa yor ay tout tànk ci biir yoon wi yoo xam ne ma mission bi mu yor du jeex mission jàngale jàngale daanaka sëñ daa Abdourahman Lo jàngal na doom jàngal baay jàngal sët moo tax mission bi mu yor du du jeex loolu moo tax ñu yóbbaale ko Mbàkke Bari Sëñ Tuubaa bi muy dem Mbàkke Bari mu yóbbaale ko Mbàkke Bari bi mu ko yóbboo Mbàkke Bari jël place sëñ Mandumbe sëñ Cheikh Ibra Cheikh Ibra jox ko sëñ Mandumbe daal di jël euh, place bi nga xam ne moom la Cheikh Ibra Fall tooge woon mu jox ko sëñ bi euh, Cheikh Ibra Sarr mu yóbbu nag ñi nga xam ne booba ñoo toll ci jàng ak tërbiyewu mu daal nag dem nag Mbàkke Bari sanc fa fekk na booba itam fii amoon na ay ay jaxasoo yu fi amoon ndax booba doomi buur yi tàmbali nañu xam woote bi di bàyyi fañ nekk di ñëw di ziyaare si sëriñ bi ñii di jébbalu ñii di dégg woote bi di ñëw ngir seen i njariñ maanaam mooy amatu naas yëpp rek ni sëñ Tuubaa amee njariñ nga xam ne fu mu nekk ñu fekk fa ngir aajo yi wute ñii dañuy jàng ñii dañuy tarbiyewu ñii dañuy wut si ndimbal ñii dañ fi ñëw di jox si ay relation mu dem ba xam ne nag léegi Tuubaa nekk na waxtu woo xam ne ñëppay ñëw na mu ko bëggee ci diggante yar ak defar ndax wax nañ sax su ma saa am buurub àdduna daarul mën naan la koy dalal li tax mooy ñii tërbiye wu di wut ngërëmul yàlla waruñoo jaxasoo ñeneen ñu bokkut ñu ñoom yitte ndax soo amee gan loolu ba na ngeen kër kilifa yi loolu nañ ko bàyyi xel dong laxasaay bi ak dong bi kër gi bu gisee ngay fonk gan goo xam ne wàccuwaay ba nga koy jox xëy na moom day wut ngërëmul yàlla wàccuwaay boobu gisuñu di ko jox maanaam bu bu bu bu bu bu amul ndimbal rek day jàpp ne yow danga nga koo gën a léeg ñi fiy ñëw. te fekk ne ñi fiy ñëw daa am lu fii ni ñi ay nawle lañ ay nawle lañ ndax ñoom booba mën naa am lu ñuy ñëw di kilifay diine ñii ay ndombay tànki àdduna lañ yor du ay buur ñii dañuy sàkku si ndimbal kon nit mën na ñëw nga di ko jox muy yóbbu ci teraanga ji ci kër gi yow mi tër bi yow nga fi nga nekk fi di xiif di mar waaye yow yaa jaayante toog liggéeyal yàlla léegi nag loolu moo tax ñoo xam ne buur yi àddina yi ak dignitaires yi daarul mën naa la leen doon dalal ngir rawale ñi doon tarbiya loolu itam ñu bàyyi ko xel ci liggéey sëriñ bi ba nga xamee ne nag dem na Mbàkke yi dafa wax sëñ Mbàkke bu sa ne ko Touba yaa fi kilifa ki maanaam booba Touba dëkk bi sëñ Mbàkke moo ko yor da koo digaloon it da ko ku koo xam ne ñëwut ngir sàkku ndimbal waaye dafa bëgg lum xam wala dafay wala daf daf maa yitte yitte wooju far maanaam bu dul loolu maanaam bu dee yitte joo xam ne ju ju ju jus mën a saafara la ci xam-xam wala nga mën koo saafara na yem ci yow bu mu ñëw léegi daal di yóbbu ñee waaye suñu mbekk neen yeggu dara mu dégg nit ñi di jaar ci yoonu suuf yi di dem jolof te duñ ko tàggu sax ndax xër gi nit ñi xër ci Sëriñ Tuubaa ba Sëriñ Tuubaa demee foofee nag ci 1895 la ko daloon ci Bawal mooy chef maanaam maanaam chef de canton yi chef de canton yi fi nekkoon ak euh, buur yi jamono jooja ni mu leen xawoon a xatale ci ñoom aw nit la ñuy wut moom yàlla jox ko nit ñi loolu bi mu ñëwee Mbacke Bari sanc fa Leclerc mi nga xam ne moom tam moo jiitu woon cercle luga moom itam dafa am problème ak Sëñ Touba daal di commencé moom itam nag di bind ay rapport di ko yónnee Merlin ki ñu wax Merlin nag moom. moo yoroon affaire politique ci jamonoy tubaab yi lépp luy dox ci réew mi ci yu mel noonu moo ko doon saytu suñ kon day mel ne siñ Tuubaa élément la boo xam ne pour ñoom lañ bëgg muy coloniser réew mi comme que maanaam noon maanaam ñoom xeexoon nañoo ak buur yi ba daaneel leen xeex yenn sëriñ yi exilé leen ñu dee ci àll bi ñenn ñi ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu jaxasee leen ak yenn buur yi fi nekkoon ñu xeex ak ñoom ku mel naka buur Siin Kuma Nduufeen nga xam ne buur siin sax moom ci buur yëpp défendre Serigne Touba la bokk waaye buur siin rek laa jublu wax Kumba Ndoofeen moom bokkut maanaam buur buuru siin dafa am ay tur ke ñu wax Kumba Ndoofeen moom dafa jamono teg Serigne Touba nangul ko waaye lenn ci buuri siin ya nga xam ne am na beneen tur kooku doonu am na Serigne si daje nañoo moom ab xare ca mooy ca Maba Jaxu Ja njëkk Serigne Touba di ñëw maanaam Touba bi intervenir jàppale buur booba pour néewal doole Serigne si nga xam ne tubaab bi tam daana am intérêt ci. maanaam di fenqalante ci biir réew mi diggante sëriñ si ak borom ndombe tànk yi loolu mooy bi muy tàmbalee ñëw di installé wu ba néewal leen doole ngir bëgg moom bu ñëwee lim bëgg mooy coloniser réew mi kon daa mel nañ ñëpp ba pexe jeex na bi sëriñ Tuubaa ñëwee na ñu gisaat ne kon benn point départ bi nga xam ne sëriñ Tuubaa maanaam am na ko te mooy bu jógaatee lislaam dekki ci lañ nekkoon nag nañ ko sakkal pexe ndax mooy élément bi mën a yeewaat lislaam ci Sénégal loolu mooy sababu ñu jëlee ko fi. léegi bi ñu ko fi jëlee yàgg nañoo net li yoon moom jaar sëñ Mor sax juñu ci dara jóge Mbàkke Bari jaar barab sàngam ba ak si Ndar waaye li ñu jubla wax rek mooy bi ñu koy exilé nañ bàyyee xel ne conseil privé ba maanaam ña ko doon atte atte bu doy waar lañ ko atte ndax boobu day wax ne ki nga xam ne moo nekkoon gouverneur général jamono jooju mi ngi tudd André Félix de la Motte waaye moom ci boppam dafa jeexaloon. mission am wala dañ koo yebaloon ci mission fi wax gi yenn maanaam ab barab la boo xam ne dañ fa daal yóbbu ñenn ñi di fa punir ak yu mel noonu léegi nag mu am ku ko war a remplacer ku ñu wax euh, Jean Baptiste Sujet koo xam ne bu ñëwee moom kilifteefam day ëpp Sénégal waaye dafay yilif Afrique sowu jant ci diggante boobu nga xam ne ak séegul nag ci la Merlin ak Louis Mouti maanaam muté moo nekk nag remplaçant gouverneur général en attendant nekk góor maanaam xaakimu ndar ci diggante bi nag mook euh, Merlin ñoo dajale ay nit def benn conseil privé boo xam ne wax nañ ne ña ko doon atte pour génne ko nitu justice sax nekku ca ay ay nit simple ñoo xam ne ay balance simple rek lañ am na ci ñoo xam ne ay enseignant lañ ay jàngalekat lañ am na ci koo xam ne sax ab médecin la far nga xam ne amul benn relation ak justice ñu tëj ko ci am néeg rek tëgg seeni tuuma daal gaaw atte ko daal di koy gaaw exilé génne ko loolu nag mu am fa juróom-ñaari at yu teg ba ñibbi siwaat incha allahu taala fii ab tàmbala rek dañ cee war boo xam ne dañ fay yem waaye ñu xam ne Serigne Touba génne wuñ ko ci benn sabab lu may bëgg ko gàllankoor ba du taxawal islaam bu ñaareel bi mooy niñ ko génnee conditions yi ñu ko teg dara baaxu ci mm-hmm. jamono sax war naa ñëw. maanaam loolu ñu plaidé ko maanaam maanaam wane ne maanaam eh, loolu sax duñ ko tuumaal nguurug France dañ koy tuumaal ay blanc yoo xam ne France lañ njëkk mooy ay français yu fi nekkoon parce que booba comme que gouverneur général bi nga xam ne moo waroon a yirif Afrique sowu jant waroon a jël ay décisions fekk ko fi dañuy wax ne ay noon yu dëkk France benn benn ay blanc yoo xam ne dëkk nañ France te maanaam am jafe-jafe ak Serigne Touba mooy fiire ko ak nit ñi ñooñu ñu tëgg seeni tuuma yoo xam ne dara tegu ci aw yoon daanaka sax xawute concerné dëgg-dëggi France euh, waaye ay nit benn ci ñoom ndax ka nga xam ne moo nekkoon gouverneur général bu njëkk ba kooko d'accordoon na ak yoonu murit ak sëriñ bi ba nangul ko ba bàyyi leen ci seen jàmm ki nar ñëw nag kenn xamutoon lan mooy pas-pasam kon ñu dox ci diggante bi def yooyu tappale ñoom lay mbir moom engagé kon nag loolu ab tomb la woon rek boo xam ne euh, dafa néew luñ koy néew luñ koy leeral ci ñuy déglu moo tax ñu ne woon tey nañ fàttali sabab bi tax ci sababi zahir yi tax ñu jël Sëriñ Tuubaa yóbbu ko ci géej gi hada wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ok jërëjëf Cheikh Mamadou Fadal euh, kaddu yi am na solo lool euh, jërëjëf sëriñ Modou Dramé wax tax yow ubbe bi am na solo li sëriñ Mbàkke Fall bu baax moom itam tàmbali am na solo lool wax dëgg yàlla kaddu yi nga fi indi kaddu yu am solo la yoo xam ne njàngan mu rëy rëy na képp koo xam ne mu ngi bàyyi xel euh, site bi nga xam ne mooy Istikhama TV Euh, wax dëgg yàlla it kaddu yi nga fi indi bu ci bàyyi xel dina xam ne sëriñ bi sabab bi nga xam ne moo ko génne woon yaakaar naa ne ñëw ngi ci bu baax a baax donte lu euh, gàtt la waaye nag ak ubbeen yaato yaato yaatoo mi ngi ci kon nag euh, seen commission communication tey bii nekk ci diwaan tey lii leen indi woon sëñ Fall dara Dramane ñu ngi lay sant lu gërëm bu baax a baax di ñaan suñ borom ñu def ñu dégg ak topp kon bu subaa incha allah ñu ñëwaat ak yéen ci beneen tomb ak beneen jotaay waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo